Euh, mooy euh, communicateur la euh, donc bokk ci mouvement bi nga xamante nii yore sax li nga xamante ni mooy seen kàddu mouvement bi ñuy wax donc ànd dooleel Macky dooleel Macky te Babacar Pascal Dione nekk ci bopp bi El Hadj Sow ñëpp xam nañ ko digganteem moom ak Babacar Pascal Dione dafa doon loo xamante ni ay at la jàpp naa ni ëpp na ñaar fukki at ñoom ñuy ànd. Euh, tey jii nii donc euh, euh, ñu war ko dalal ñu war a waxtaan durant vingt minutes ci li nga xamante ni mi ngi jëm ci wàllu feebar bi mais aussi ci wàllu caajaay bi nga xamante ni ñoom fa lañ dëkk El Hadj laata may sori rek dama lay bàyyi ngeen nuyoo ñu soog a dugg ci waxtaan bi El Hadj salaamaaleykum. maaleykum salaam Moussa Diop Biba maa ngi lay fay nuyoo bi ah di la di rafetlu aussi émission bi et li nga ñu ci invité tey donc concernant coronavirus. bi nga xam ne tey mooy feebar bi xew ci réew mi nga xam ne moo jaaxal ñëpp euh, vraiment aussi am nañ contentement yu bëri pour ñëw fii tey fekk si leen. Mm-hmm. Euh, donc di nuyu aussi waa département de Mbour. Euh, di nuyu waa Sénégal yëpp. Mm-hmm. donc su ma nee Sénégal damay tudd fépp fu nit nekk muy àdduna bi wërngal képp am naa yaakaar ne ñu ngi seetaan émission bi ñu ngi koy suivre ndax seen émission bi wër na wërngal képp àdduna. tay ñep ñu ngi koy bayyi xel diko ko mm. donc barki dem nga invité suma frère commissaire Madiobu Lay. Mm. donc ak ñeneen ak ñeneen. kon tay vraiment émission la bo xam sénégalais yi nañ ko xel. Mm-hmm. kon donc ma ko koy rafetlu bu baax. Euh, di nuyu waa aussi également. Euh, commencement par mon leader Babacar Pascal Dione comme ni ko waxé et la show di Malaw ñu gën ko ragné ci Malaw. Mm. ma nekk aussi communicateur bu mouvement Dolli Macky donc le leader Babacar Pascal nekk ci bi et kon bu ma ko nuyoo rek donc damay nuyu aussi également le maire de Thiadiaye mooy El Hadj Omar mhm. ministre des transports TERS mhm. donc vraiment di nuyu aussi responsable yi nga xam ne tey jii ñoo ci département de Mbour yëpp donc euh, waaw Moussa donc nous mën continuer encore mhm. vraiment waaw euh, jamono juñ toll dañoo nekk ci le contexte du doy waar bi maanaam euh, li ñuy woowee feebar bi wax nga ko léegi sax coronavirus bi Euh, yéen ci Caajaay moo ko dundee. waaw ni ñu ko dunde mooy comme ni ko Sénégalais yëpp dundee rek vraiment euh, feebar la boo xam ne mun naa ne du doomu aadama moo ko def yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk. moo ko wàccee ci ci ay jaamam. Mm-hmm. donc loolu kenn mënu si dara parce que bu doon feebar la boo xam ne moyen moo koy faj. Mm-hmm. wala sax dañu xam jumtukaay bu koy faj kon yaakaar naa ba mu dalee ci doomu Chine kon du egg si Afrique bay egg si Sénégal. Mm-hmm. kon yaakaar nañ ne eh, kéem daanu yàlla la eh, kéem daanu yàlla nag kii yéem na ñëpp donc loolu moo tax aussi ni ko àdduna bi di dundee mhm. ñun aussi également caajaay noonu lañ koy dundee mhm. mais aussi vraiment ñu ngi rafetlu aussi eh, les kilifa yi matuwaay yi ñu ci jël commencement par le président de la République son excellence président Macky Sall ah bi affaire bi amee aussi teel na protéger sénégalais yi. jël ay mesures. jël ay décrets yoo xam ne vraiment pour bañ feebar bi am doole comme ni mu yeneen réew yi. vraiment euh, donc métti na mais loolu jàpp naa ne loolu suñu ndimbal la ñun. parce que boo xoolee tey jii feebar bi cas bi mun naa ne tey mu ngi wàññeeku si euh, ci Sénégal ndax loolu yëpp ci grâce à président bi mu jëlee arrêté am jox ay ordre ñi nga xam ne tey mooy gouverneur yi ak préfet yi ñooñu aussi jël la gendarmerie et la police. donc vraiment loolu rafetlu nañ ko ñun sénégalais yi. Mhm. kon président aussi gàcce ngaalaama parce que li tax ñu fal ko aussi loolu moom moo tax. Mhm. mesures yi donc li mu ci jël maintenant ñu aussi également caajaay respecté nañ lolu parce que euh, nit amoon lu dul kilifa bu kilifa président bu président jëlee décret joxé ko wo kilifa yi teg ko ci seen loxo ñun mënuñu lu dul respecté lolu yoyu condition mhm. metti na également mais aussi lu metti aussi ci nit lay dal parce que li tax ma ne métti na ñun Adja donc commune la bo xamné ne amuñu doole. surtout ma ñi nga xamné tay ñi fay yeewoo yépp ci biir commune bi. seen mbébét yépp ak seen mën-mën mooy commerce ak transport. mais depuis que ñu wax ne tey dañoo arrêté les marchés. donc muy marché Sandiara et Ndiaganiao et Thiadiaye ba ci Mbafay. daanaka ñi yeewoo commune Diadia yi quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ci marché yooyu lañ doon amee lu ñuy yóbbu seen i kër. Mm. donc également bu ñu xëyee xëy tey arrêté marché yooyu mitti na. Mm. mais vraiment aussi itam ñoom aussi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi euh, ñu ngi euh, dund mitit boobu. Mm-hmm. vraiment di ko di ko di ko bokk ak ñun ñun itam gis nañ loolu bu ma jógee ci côté commerce bi damay dem ci côté transport. Mm-hmm. toujours à Diadia yi parce que mën naa ne tey doomu Diadia yi daal. département bi la fi togal également mais aussi tiajay la fi gëna togal tiajay ñun transport lañu am ak commerce la na ci commerce bi légui mais transport aussi également wax nañ ko xey nañu garé auto yi parce que imagine que tay bo yoré car bo xamné mu ngi yeb 35 personnes ou 40 ñu né la tay mënu to ci wessu lu wessu 20 personnes wala 25 bis bi yeb 65 personnes ñu né mënu to ci wessu 19 personnes ko lolu mais veut que so calculer 19 personnes kaolak dakar la nga ci enquêter moto la carburant kon mieux vaut que nga gaara sa oto metti na nag mais ñoom ñu ngi toog di ko muñ. mais li may wax rek mooy état vraiment gis nañ initiative yu président Macky Sall def génn na ay moyen pour jàppale ko population Sénégal mais ñu aussi également bëgg nañu àjaajaay yooyu moyens ak boobu ndimbal président di def mu egg fii ci ñun. parce que nag gaa ñi sonn nañ Moussa bu ñu waxantee dëgg. ki nga xam ne tey marché lay dem pour def dépense. ku ne dootoo dem marché métti na. Mmh. mais maa ngi ci profité aussi di remercier la gendarmerie de Thiadiaye le commandant. ak adjoint mesures yi vraiment respecté nañ ko. te aussi ni nga xam ne tey jii moom la ko kilifa yi santaane. Hmm. moom commandant mu ngi koy defee noonu. d' accord mais euh, wax nga coono bi nga xamante ni askan wi ñu ngi koy dund foofu mais. Euh, xam nga euh, ki nga xamante ni mooy Macky Sall bu waxee loolu aussi waxoon na ay mesures yoo xam ne euh, de compensation yoo xam ne dañ ko war a indi lu toll ci mille milliards sax tudd na ko pour jàppale askan wi kon ndàmpaay loolu askan wi nekk Caajaay soxla nañ ko. également bien sûr soxla nañ ko parce que mille milliards yooyu président Macky Sall wax. Hmm. wax dëgg fa yàlla bu dee bu ñu ko jotoon tey tey tey tey ñun Caajaay dañu xàppi. Hmm. parce nag comme ni ma la wax rek am na ñoo xam ne tey commerce lañ yaakaar te ñu ngi teg euh, seen i oto ñii ñu ngi teg seen i marchandise mënatuñoo dem ci luuma yi. maanaam amatuñ dara. amatuñ dara ñi nga xam ne dañuy bay pour dem jaay seen pomme de terre bi maa ngi waxtaan ak sama benn xarit boo xam ne day day béy pomme de terre à Fissel Madane donc nee na ma bi ma béy yëpp maa ngi ko maa ngi ko weer ci àll bi parce que amu fu ma hmm. na. waaw kon ñun ndàmpaay boobu président génnee ñun soxla nañ ko aussi à Diadiaye te ñu ngi ñaan le ministre des transports mon leader donc bu ndàmpaay boobu génnee. Hmm. département de Mbour mais soxla aussi 100 mhm, mhm. euh, donc euh, ci est-ce que euh, parce que jàpp nañu dëkk amal sensibilisation est-ce que sensibilisation yi acteurs politiques et développement ñu koy amal waaw également ñu ko fay amal. Mhm. rek. Babacar Pascal ndax na donc ñun aussi terrain mais la maire aussi. génn na joxe na ay moyens vraiment ba yóbbu nañ ko hôpital. Mm-hmm. jox nañ ko comité de santé bi. donc pour mu distribuer ko ñi nga xam ne tey jii mooy population Thiadiaye wax mm-hmm. donc vraiment aussi loolu maire ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm ndax initiative bu rafet la def. Mm-hmm. aussi Babacar Pascal aussi la même chose génne na ay moyens jox ñu ñu jënd ay lave-mains ay savon. pour jox ko aussi également population Thiadiaye. d'accord parce que aussi ñu ngi ci à 100 pour cent. mën nañ ne tax na ñun Thiadiaye donc vraiment alhamdulilah rabbil alamin li ñuy gën a jooy kay mooy le problème de dund bi métti na man foofu moo ma gën a touché parce que li ma lay wax rek commune lañ boo xam ne amuñu doole. Mm-hmm. ñu fay nekk ay jaaykat lañ ñi ay ay transport lañ yaakaar. Mm-hmm. la ngay jaayee ji Moussa Diop bi ba bu ñu la nee dootoo dem dootoo dikk. Mm-hmm. la kër bu ñu la gaare ko loolu ku la wax ne tey méttiwul da lay nax. métti na ma gën a profité na di wax bonne volonté yi nga ne xam ne ñu ngi nekk ak jaajaay ñi yàlla may situation képp ku dëkk nit wala nga dend ak nit te nga ëpp ko situation ëpp ñaan nga jàppale ñooñu parce que gor du ñaan mhm. mais nag ku ko dimbale mu jël mhm. vraiment côté boobu lay gën a wax euh, di gën a ñaax nit ñi aussi gaa ñu ngi def ndax kiy def du wax mhm. waaye nag ku doon def nga gën a yokk ku defagul aussi nga def nga def d' accord defe naa ne kon loolu leer na ñu léegi tuuti sur le plan politique dafa mel ni caajaay fi mu toll nii euh, tendance yeeg yooyu yëpp da ngeen koy jël teg ko fële euh, booloo ci pour une benn cohésion muy maanaam développement le maire muy ki nga xamante ni mooy Babacar Pascal Dione dafa mel ni daal léegi daal euh, yéen ñëpp yéen a ànd daal. waaw si le plan politique Moussa dama ne woon sax bugguma ci wax parce que nekkuñu ci moment politique. waaw donc ci moment coronavirus lañ nekk. Mhm. xool nan lañu yàlla dimbalee ñu génn situation yi nekk. Mhm. waaye nag euh, koo xam aduna xamaale ko ak politique. Mhm. donc moo tax itam du ma ci bëgg xuus lu bëri mais li ma lay xamal rek mooy depuis lii am avant sax. caajaay donc dañoo booloo nekk benn. Mhm. donc muy Babacar Pascal muy El Hadj Omar Youm donc muy yeneen parti yëpp vraiment ñun amuñu aucun problème à Thiadiaye pour problème bu tendance ñu ngi xàccee xàcceendoo di dóorandoo vraiment di def li président bëgg mais également fi ñu toll nii tey nag wax dëgg fa yàlla mhm. ñun dañoo jël politique taxañ ko teg ko à coté mhm. lan moo ñu ñor ak lan la ñuy jóg di ko dox muy wér-gu-yaramu doomu aadama yi ak feebar bi ñëw Sénégal nan lay koy yàlla yàlla ñuy nan lañ koy xeexee ba mu jóge fi nan lañ koy xeexee ñu aussi également à Thiadiaye ba mu jóge fi kon vraiment euh, ci côté boobu daal laay xooy politique moom bugguma ci xuus de trop parce que nekkuñ ci période mhm. euh, ci wàllu ba léegi wàllu feebar bi euh, ne ngeen maanaam yéen ngi génne ay ndimbal ak yooyu di ko jox askan week yu demee noonu Euh, mesure de compensation aussi yéen ngi koy xaar ci walu école yi est-ce que maanaam aussi euh, sentir le ne élèves yi am dañ ci am ay jafé jafé waaw dinañ ci am ay jafé jafé parce que ku xamné tay di euh buñu xeyé xëyee na na école yi arrêté. Hmm. donc na jumaa yi arrêté. Hmm. nekkul loo xamné mo gënal président nekkul loo xamné aussi ñun moñu gënal gënal àjjaajaay gënal le maire gënal les responsables politiques. Hmm. mais nak ah lu mënta ñàkk foog mu am. parce que tay buñu xolé xoolee tey yi. bu ñu dee dajaloo ci école yi xale yi xamul dara mën nañ leen a wàll te bu ko jëlee ci école yi mën nañ ko indi ci biir kër yi. Mm. kon tey bu ñu xëyee xëy ne nañ arrêté école yi donc loolu mesure la boo xam ne donc ñu rafetlu nañ ko. Mm. mais aussi li ñuy defee mooy ñun ñu jël suñuy doom di leen fexe di leen jàngal ci biir kër yi. Mm. kon maa ngi ci profité di wax bépp parent d'élève bul bàyyi rek xale yi parce que tëj nañ école rek bu ñu dem nekk ci seen liberté. mais nañ ci profité également. ku mën a jàngal sa doom nga di ko jàngal. Mm-hmm. donc parce que xale moom xamul lu dul li nga koy won chaque jour. mais donc beaucoup euh, Macky Sall opposition bi ñoom ñu corona nan nga ko ça veut dire que Macky tous les responsables des des des des des politiques bu di doon xam département nga xam nga parce que moom la de président Macky Sall moo mën a les les les opposants politiques. woo leen ci pale bi vraiment ñoom dem ñu am oyof te toll ki ne dem wuy ji président ci woote boobu xam nañ ne kon du politique parce que peut-être bu doon politique la sax mën nañ ne du ñu ñëw wala extra mais xam nañ ne jàngoro moo ñëw ci réew mi te kilifa réew mi mooy président Macky Sall bu leen wooyee ne kaa leen ñu échanger ay idée xool nan lañ mën a def tey ba jële fi lii ñu tam vraiment dañoo dem wuy ji président ñu rafetlu ko bépp sénégalais rafet na ko loolu muy opposant muy pouvoir kon vraiment président aussi loolu mu def mooy démocrate wan na sénégalais yi ne man démocrate la mm. wan na leen aussi ne vraiment man Sénégal moo ma ñor bu ma neexoon itam danaa man may la pouvoir du ma woo kenn sama samay conseil doy nañ ma hmm. samay conseil ministre doy nañ ma mais dafa woo ñépp ñu ñëw sottandee xàcceendoo dóorandoo hmm. pour andi li nga xam ne day ji mooy njëriñu Sénégal ci feebar bi d'accord ñu dem ci développement Thiadiaye est-ce que Thiadiaye jamono ji ñu toll nii mu ngi soqaliku waaw wala déet wala na mu meloon noonu la mel ba tey wala bokk euh, donc gis ngeen daal avancement waaw wala mu ngi soqaliku parce que euh, mesures yi ma ci mën a wax li ma ci mën a wax mooy ci li ma ci gis parce que bu nekkul woon problème mu feebar bi développement réew développement dëkk mu ngi commencé ci gare routière mm-hmm. ak quai de pêche mm-hmm. ñaar yooyu yàpp naa ne tey mbuur gii ñu nekk nay mm-hmm. euh, dooley commune bi yëpp tey mooy gare routière bi gare routière bi ubbi gare préparé woon nañ pour ubbi ko le 24 bii ñu génn la bii ñu génn ñu baase mais malheureusement feebar bi moo tax ñu jël aspect yooyu yëpp daal di koy teg parce que dañ ne lépp loo xam ne tey day dajale mbooloo nañ ko bàyyi kon donc loolu loolu moo tax la maire profité ji aussi ak le président de la gare routière muy mon père et ami Papa Damlo vraiment ñu jël affaire bi teg ko ci suuf mais dañ ne woon tey day day ubbi kon heure bi waroon a fekk tey caajaay kuy jël oto gare routière ngay dem te loolu je pense que day bu ubbee ci gare routière bi rek mooy développement caajaay day gën a yokk mhm. kon développement réew ak dëkk mu ngi commencé ci gare routière ak yàlla may ñu quai de pêche nag mais may nañu gare routière bu mucc ayib boo xam ne vraiment. lu tolloog donc cent véhicules mën nañ ci nekk. donc vraiment te loolu aussi recette la boo xam ne ci caajaay lay gën a lay lay gën a yokk caajaay. mais que est maanaam am na loo xamante ni euh, commune ba def na ko fa lu mel noonu loo xam ne lii de dañ ci mën a am liggéey ak yu mel noonu parce que quand même man damay dem caajaay te gis naa ne quand même euh, seen marché bi sax bon dafa doy waar ni mu nekkee des choses comme ça xëy na espace amatul mais mën nañ ko gën a améliorer. ak euh, maanaam créé daal ay kii yoo xam ne tax nit ñi xale yi mën a liggéey. waaw loolu également euh, marché bi donc vraiment euh, maire profité na ci am na ci ay jéego yu mucc ay yu mu ci def parce que réceptionné waat nañ marché bi man bërki démb rek dem naa fa fekk ma waroon a xëy ñëw mbuur parce que comme dañoo dañuy tëj marché Caajaay mm-hmm. donc ñu informé ma ko donc ma nekkoon su ma xëyee naa dem mbuur uti jën mm-hmm. donc bi ma wooyee sama xarit Ousmane jàmm nekk fii mu ma tey dañoo tëj donc ma dugg biir marché gis ni ñëw bi ma ne eh, alors kon dañ ne woon tey dañuy tëj. Euh, falaa doon jënd jën ba jigéen ñi di ma ree sax ma ne non non man dama dama damay jàppale sama jabar. Mhm. donc c'est normal euh, mais gis naa ne vraiment marché bi defaraat nañ ko mucc naa ayib ndax man gëj naa dugg ci biir donc bu weesoo romb mais na ma gisee mbaar yi ak ni ñu defaraatee vraiment. tek nañ ko ci condition yo xamné alors que donc lo recette ci caajaay la jappalé na aussi également ñi jaay ci marché bi ñi nga xamné moy mooy les commerçants ñi nga xamné ñom ñoo fay jaay. donc bu wéxo lo aussi xam nga li la wax ñun jaay jaay commune lañ bo xamné amuñu doolé amuñu géej amuñu yenn extra yi mais vraiment ñi gëna ñaan aussi le responsable le maire le ministre des transports mu gëna góorgóorlu ci caajaay gaa ngi ci góorgóorlu. mais mu def lo xamné aussi vraiment. euh jeune caajaay dinañ ci gis sen bop gis nañ ci sen bop mais ñu luñ mëna japp pour mëna am lu ñuy dexal seen activité. d'accord euh donc euh, marché bi kon marché caajaay aussi ñu ngi koy tëj ndax corona bi aussi. waaw waaw ko waxee. waaw waaw dégg naa information bi ne dañ koy tëj pour pompe ko comme ni ñu koy defee ci yeneen marché yëpp. Mhm. c'est normal. d'accord que nag loo xam ne tey bu dalee mbuur. Mhm. bu ñu nee nañ ko def mbuur mbuur moo ëpp jaajaay. d'accord kon donc jaajaay bu ñu ko joxee ne nañ ko def ñun itam dañ ko war a rafetlu parce que lépp ci suñu kaaraange la la la lay daal. Euh, dama ne woon dama ne sax bi di wax ci politique mais quand même euh, élection locale ñu ngi jub jub si donc yéen a ngi koy pare. waaw pare bi moom kenn du wax naka lañ koy pare waaye yéen koy pare waaw mais comme li ma la rek hmm. euh, politique dama ne woon du ma ci laal Moussa mais souvent da nga ma ciy mais xam nga comme nekkuñu ci période élection locale. ci période coronavirus lay nekk. su ma sañoon daal suma xarit nga suma mag nga mais ñu jël politique teg à côté te euh, ñu suivre li nga xam ne mooy coronavirus. ak nan la ñu mën a xeexee. vraiment ñaan yàlla kuréel yi ñu koy xëcc. ba yàlla teggal ñu mais mais quand même am nga xalaat ci ci ci ci euh, maanaam yokk bi nga xamante ni yokk nañu délai bi ñu war a def pour élection yóbbu ko ba année bi di ñëw am nga ci xalaat. waaw rafetlu nga ko wala ñaawlu nga ko. non loolu du ma ne rafetlu naa ko du ma leen ñaawlu naa ko parce que idée président la la mu ci jublu ba tax mu def ko moom moo ko xam. Hmm. ñun mënuñu lu topp ci ginnaawam bu ne. am na ñu ne rek dafa jot pour xeex Sonko moo tax. waaw mais loolu moom mooy li ma la wax rek man mënu ma ne yii mënu ma ne parce que idée la xëy na moom moo toog concerté wu ak estafam. Euh, hmm. ak itam ñi nga xam ne tey jii mooy ministre conseil ba xam ne lii bu ko defee lan la koy jural ak lan la koy apporter. Hmm. loolu vraiment man sama xam-xam tuuti na ci pour ma ciy répondre. wala mais mais gisoo ne période bii su defoon élection locale day ñàkk mbir yu bëri. non non non non non mun naa ne gisuma ko sax parce que président mu ak pouvoir bi ko yàlla jox ak li muy dimbale sénégalais yi jàpp naa ne tey donc loolu ñàkkaloo ko mais daal comme ni ma la rek mm-hmm. comme ci coronavirus lañ nekk mon frère donc nañ ci xuus ci coronavirus fii ba midi boo ma ci laajee mun naa la tontu mais politique moom dama ko teg à côté voilà mu mel ni kon waxtu bi daanaka jeex na parce que 15 minutes la ñu amoon donc euh, ni ñu koy defee ci émission bi vision xanaa rek bàyyi la nga ñëw sa dernier kaddu lan ngay ñaax askan wi waaw li may ñaax askan wi rek ñu respecter les mesures mesure mooy yi nga xam ne tey moom la ñu loi teg. bu ma nee loi mooy le chef de l' état mooy le pre le le euh, gouverneur mooy les préfets et les sous-préfets et les commandants brigade de la et les commissaires de police ñun ay ndaw lañ suñu nee tey couvre-feu dee leen tëdd huit heures ça veut ne bañ ñun nootu ñu mais jàpp nañ ne tey loolu moo gën ci ñun. Mm-hmm. ma wax fànq ne maa ngi doon remercier suma commandant de la brigade bu Caajaay. Mm-hmm. aussi liggéey bi mucc ayib bu muy parce que démb gis naa ne mu ngi dem di monter ci àll bi. Mm-hmm. booy booy dugg caajaay fii plutôt ak entrée caajaay bi noonu parce que dañ ñu ne am na ay clando yoo xam ne ñu ngi dem Dakar te caajaay la ñuy jaar. te dañuy de tere que ñu yëpp quatre personnes ci oto yi. man mi di wax ak yow en que responsable di communicateur mouvement Dolli ma keroog yem naa quatre personnes sama oto dem am fu ma yóbbu booy ñu may dimbali ci benn liggéey mais bi ma ñëwee dañ ma arrêté xam nañ man defuma clando mais vraiment dama wàcc xale ci seen kanam. donc daal euh, di euh, jéggalu ci seen kanam xam leen ne kat mesure leen jox il Mm-hmm. kon vraiment aussi ñun ñu ngi koy respecté à Diadiaye ñu koy dund aussi également. Mm-hmm. ñun amuñu zéro faute parce que bu ñu defoon nee itam dinañ jaaxal les responsables politiques dinañ jaaxal kilifa yi mais mm-hmm. vraiment ñun Diadiaye vrai on est bien. d' accord waaw Babacar Pascal Diome euh, mi ngi joxe gel wala. waaw génne na fond. boo xam ne nii pour jënd nañ ko ay gel pour jox ko la population de Diadiaye waaw. kooku moom lu leer la. waaw d' accord kon Babacar Pascal Diome yow la ñuy waxal yow it euh, donc je crois euh, donc euh, li nga xamante ni moom mooy sensibilisation bi jàpp naa ne sax yaa ngi ci waaye nag ni ko ni ko Malaw waxee rek donc jàpp nañ ne foofu ca diwaanu Caajaay Euh, yéen a ngi fay def euh, loo xamante ni lu am solo la ñu koy rafetlu bu baax a baax euh, donc di rafetlu aussi présence ki nga xamante ni moom mooy Malaw Malaw di koo xamante ni moom Babacar Pascal Diome quand même xam nañ leen depuis des années ensemble donc ñu bokk di liggéey ci corona bi aussi jàpp naa ne yéen a bokk li nga xam ne mooy combat bi ci biir kër yi ci biir koñ yi kon Malaw di la jox rendez-vous rek beneen yoon ci beneen émission xam naa ne fi mu toll nii même nuyoo dañ koy bañ kon rek jaajëf kon <laughs>